c'est une petite sortie pour encore une fois avec waxtaan ak patriotes voilà ak sénégalais yi nga xamante ne ils ont compris le projet de Pastef ils ont épousé le projet de Pastef man nak ci li ma mën a wax mooy li ma xam li nga xam moom laa maîtriser li nga xam dañu ko bokk ma jàpp ne am na as tuuti loo xamante ne nii mën nañ ko fàttalante ñun yàlla daf ñu dimbale ñun patriotes ñun projet lañ yor dynamique lañ yor yàlla daf ñu dimbale ñun kenn du ñu nettali ñun suñu gént ñun suñu histoire kenn du ko raconté yàlla daf ñu dimbale aussi ñun suñu projet pour nga comprendre ko il faut nga comprendre Sénégal parce que il faut nga comprendre système bi waaw yàlla loolu la ñu dimbale mais surtout yàlla lim ñu dimbalee mooy ñu on a eu les moyens de notre combat nous, on a su déterminer nos objectifs court, moyen, long terme. Et on s'est donné les moyens d'atteindre ces objectifs-là qui comptent ci ken ku dul sénégalais C'est une particularité là. ku ne mën na wax nak. gis nga wax dafa yomb ñun dañuy wax indil la nous teg te nañu nous bu baax suñu combat ràññee bu baax suñu adversaire parce que nit doo ko fekk ci bou nga jël ko sang ko bamou set bamou rafet nga sorti ko parfum yokk ko fit yokk ko doole parce que taxaw ni amna fit c'est trop facile en fait tout le monde peut le faire Macky Sall def na fay acte de courage par pour jël nguur gi taxaw ni amna fit très facile dañuy wax lan nga def ak lan nga réussir kan nga doon lan nga doon du ci ay làmmeñ kese lan nga doon moy yow qu'est-ce que tu as accompli yow yow ak lan la ñi fexé ba nga doon yow fi nga dox yeggal sa bop ak fi la ñi ñi fek sang la ba nga set de la parfum defar sa chemise boutonné la né la doxal cette histoire là ñun patriote kenn duñu ko raconter parce que ñun ñoko réaliser en fait je voudrais parler à tous ces patriotes qui pensent que dañu ñu nax

mu suñu bàyyi di nekk suñu xol xolal mu dominer di nekk suñu xel ñun dañu boole ñaar yi ñun dañu jàpp ne xel mi nekkoon ci système bi ba tax ñu jàpp ne tout est permis pour atteindre les objectifs loolu lañu dindi ci politique moo tax ñëpp génn di wax lan moo tax ñëpp génn di leeral askan bi depuis quand les gens ont on on on ce besoin de génn pour leeral askan bi kan moo ko fi indi en fait tey nag ku ne mën na wax mais ñun nañu xam ñun ñooy ñan kan lañ war a waxtaanal ak kan lañu war a topp lan mooy suñu objectif sénégalais yi dofuñu sénégalais wallahi azim dofuñu comme wu téysante ñun nañu ko éviter gis nga ñun fi ñu jëm wallahi azim il faut que ñu xam ne tey ñun ñëw tey jaq bi te daara nag perte fi fañu ñu nekkoon la ñu nekk ba tey dañuy dem élection dañuy gagner élection ci kàttanu yàlla ànd ceeg sénégalais fii <laughs> lu fi waay do def lu fi waay nekk l'histoire elle est très récente yàlla daf ñu sutural ñu xam lan mooy sénégalu dimb quels sont les acteurs kan mooy kan kan moo amoon ay objectif objectif yi nga amoon fan nga ci toll est-ce que buñ la joxuloon loxo di nga yegg fi nga yegg ñun ñoo taxaw indi suñu projet and ceeg sénégalais yi am ne woon lii suñu objectif lu fi nit doon réaliser en 10 ans ñu réaliser ko en 6 mois tout en restant xoolal constant ci suñu identité ku ne nag langaamu ci ñun kenn naxuñu fi ku fi nax sa bop ngay nax ñun ñu ngi dox di dem du naïveté du dara parce qu'on ne parle que de nous ku existe, ci ñun ngay wax ku bëgg avancer ñun ngay andal loolu dafa suñu particularité xam nga ñun patriote bu ñu mësa nangu téréer boobu ñoo xam ñun dañuy ne ñun ñoo ko moom te ñun ñoo koy def suñu kaw fii ñun ñoo baax ñun ñoo yéwén ñun ñoo yaatu yaatu la naïveté naïveté bi xam nga fan koy calculer suñu yaatu bom lan lañu may ak lan lañu ñu xañ fii kan moñu fi xañ dara kan moñu fi xañ dara ñun kan mo mëna taxaw fëgg danam ne lii yaa ko jox ñun ñun ñëpp ñu amel yoro ñu kenn bor ñëpp ñu amel mo tax nañu xam suñu bop xam luñu doon peese bu baax suñu bop xam suñu nawlé on n'a pas à discuter avec des bâtards yo xam ñun ñoo leen sang rag leen dugal leen ci jeu bi

nay naïveté moo ñu may lim ñu may ñun toll ñu le tigre n'a pas besoin de démontrer sa tigritude sénégalais yi dañuy jaawale fit ak wax fit mooy nga am le moyen de ton combat nga jàpp ne objectif bi nga am lu la ci fekk nga jël surtout boo nekkee ci dëgg fit mooy nga gëm ne lii ma yàlla jox xolal du ma wayadi parce dama ragal ñàkk ko fit mooy doy lu gëm yàlla xam ne teraanga bii nga am bu la dara jaral nga jàpp ne il faut que nga jógg ci say principe pour jot ci looluy fit fit mooy nga taxaw ne man lii du ci dal nga xeex ba ñëpp xam ne jeex nga ba jeex tàkk des ci sa dëgg looluy fit fit kenn du ko jàngal sénégalais am naa fit

ayez le courage de l'attaquer mais histoire nous peut ko changer ci am ndombal que tay ginaaw yalla wallahi azim Ousmane Sonko la mu neex la mu un la nga nga ko c'est l'histoire lolou mom lañuy bind mu nefi lolou lañuy bind mu nefi motax ñun pour mer ñun dañ war di ah ñun on trace ñun On yalla na lijeenté nañ ci liñ ci waroon lijeenté ku nekk jël na wërsëgam ñu jàll ñun journal sax dañuy lekk seen wërsëg ci le prince Ousmane Sonko ñun loolu du lu bees game bi ku ci bokkul da nga ciy génn mais dañuy dox game bi ku ci bokkul dañ lay off fii kenn naxul kenn parce que kenn mënul nax kenn ñun buñ doon ñu ñuy nax duñu yegg si ñu yegg si tey nit nag di nga ànd ak nit yaakaar na yaa koy nax fekk bokku leen gis-gis bokku leen yoon moom da lay diri pour indi la yow complot sax foofu looloo leen wutale ak le plan Ousmane Sonko da ngay ñoddi fit mu wan la ne fii la fit bi ta fii la fii la buujoo ngay woote stratégie mu wan la ne fii la buujoo ñoom ñëpp moo leen di wax loo ñoom ñëpp moo leen di def loo ñoom ñëpp moo leen di yënguloo kuy def Sénégal ci politique lu positif comme lu négatif moo lay def loo c'est l'alpha et l'oméga donc loolu nañ ko comprendre donc ñun bu dara fakk suñuy ba ñun ñu ngi taase jël leen seen wërsëg mais ñun on trace la réalité ñëpp a ngi teg seen bët ku ne na jël wërsëgam le plan Ousmane Sonko moo moo bindoo noonu ay noonoom sax dañuy lekk dañuy dund ci moom dañuy tedd ci moom nga bëgg ko tedd ci moom nga bañ ko tedd ci moom Macky Sall sax yëgoo de mais xoolal la koy génneeg la ko dul génne yëpp ci Ousmane ko la nekk li mu yaakaar ni son problème c'est Ousmane Sonko solution c'est sax Ousmane Sonko la la France li ñu yaakaar Ousmane Sonko mooy seen problème seen solution sax Ousmane Sonko la patriotes yi génn ak ñi génnul ñi gedd ak ñi geddul kenn duñu teree yegg ñun fi ñu jëm kenn mënu ko parce que ñun la ak peuple nous sommes le peuple en fait et ça c'est très bien ñu comprendre ko bu leen mës a mbir benn am punkal ngeen yor mooy punkalu punkal yi ku fi mës politique fii ci Sénégal moom la lu fi waaye mës def def na lu ko raw lu fi nak ñu bax ñi bàyyi woon la ñëw synthétiser ba paré dépasser ko indi leneen c'est le politicien de son temps c'est lui qui a réussi là où tout le monde s'est rabâché mom la lu fi way di wax nak histoire mom mi fi et c'est ce qu'on retient et c'est ce qu'on doit retenir nañu identifier suñu adversaire yoon bé leer rek moo tax gars di jëfur mais bu ñu mës a mbir ñun li ñu doon ñun li ñu doon ñun xamal nañ ko suñu bopp du nit moo ñu koy wax du nit moo ñu koy wax nañu résister nañu taxaw ñun suñu projet du justice moo koy déterminer weesu nañ ko Vous nañ ko bu du Macky Sall koy déterminer ñun déterminer bu mu wala mu condamnation pas fi du ay ah, ñun li fan lañ dem dañuy dem élection 25 février dañuy dañ fay yegg le président on va gagner au premier tour comment quelqu'un peut penser que kenn mënul gagner 2021 alors au Sénégal en 2019 le Macky a gagné au premier tour vous vous rendez compte Comment les gens sont, dans... c'est du grand n'importe quoi en fait. il faut que nous, nous quelle que soit la situation Nous, nous nga des fois question de pour dalal pour affaire il faut que nous nous ñun il faut que nous nous il faut ñu xam ñun li ñu mën il faut ñu xam aussi ñun lan mooy suñu objectif fan la ñu jëm parce que affaire yi bu sottee bu waree yëngu dina yëngu boo waree sedd dina sedd ñun ñooy déterminer tempo bi li ngeen di yaakaar ne seen i stratégie kii gën heure kii def lii lay def lii kii def lale dañ dem ba ci kanam affaire bi ñun la looy la yàlla dogal nañu ko assumer nag ñun suñuy position wax ko sénégalais yi won ko sénégalais yi ñun ñoo juddoonu kenn juddoowul ñooy def lu kenn deful ñoo am lu kenn amul ñoo moom lu kenn moomul ñun ñooy joxe ay cër loolu la yàlla dogal kenn joxuñu cër ñun kenn mënul wax ba yaakaar ne moo ñu defal dara ñun ñooy defar laate ñun ñooy defar ay nit ñooy defar ay homme politique loolu la yàlla dogal suñu koy wax nag teewul respect gis nga kuy respecter allié ci àddina man musuma gis un parti politique vous respecter autant ses alliés parce que coow day bari ba ñun dañuy ni patriote ñii patriote na la te kenn dënd ci benn mbir mooy ku pro bëgg ñu bëgg la ku pro ñu la nañu ko def xolal xam na ko nit nu ko neex dama ne Ousmane Sonko ku mu bëgg ñu bëgg la ku mu teggi ñu teggi la ku mu ñu yow ku mu say mbir ñu say mbir la topp mom lañuy top, ko ku ne na topp ka neex ni ñu koy topé ku ne topé na nonu pour am li nga am quand j'entends des gens dire bi bi ñuy def li qu'est-ce que vous avez foutu Macky Sall fekk leen fi jaxase leen ñuus leen ba ba ngeen saw seeni tubéy ngeen baama ci wax ji nokku leen ci prison yi duma leen nangu seen cër nangu lepp qu'est-ce que vous avez fait ba war seen fit an lan nga way respecté leen ñun ñi respectez les ñun ñi li fit ko ko fi am ku ne ci <laughs> fit du wax de fit <laughs> du coow bari de système bi fi pour opposer au combien de gens ont opposé est-ce que xam Seck fi opposant wu Abdoulaye Wade ni Mamadou Diop ngeen gis na fi opposant xam na fi de la pourriture bo xamanteni ni tay amul leen fi système bi service yi dafa yomb xam nga lu yombul nga génn ci système bi nekk ci moo tax ci génn leen yaaxal de ku ci dem dem dem ba am la nga bëggoon da ngay génnaat parce que gis nga le président position bu mu <laughs> ci lu opposé yombul de yombul de donc ñëw ngeen jël ngeen seeni gi demee dem leen yéen loolu mooy seen ambition on a d'autres ambitions pour ce pays là on a d'autres ambitions pour ce Sénégal vous avez dans ce pays là il y a des gens, c'est des grandes gueules. Ils n'ont aucune proposition. Ils n'ont aucune vision pour ce pays. n'ont aucun projet. et l'avenir, mi ngi suñu kanam. génération bi kenn mënatu leen ndax vivre fi fit peut fi doy fi pour pro nirek, pro ni rek ni rek rek. boo dul suñu adversaire nag dinañ la lijjante ba nga set dinañ la lijjante loolu pat bu ko ñun ñoo koy lijjante ñoo lay lijjante ba nga rafet banque la ci foo xam ñu tegale ne leen ñun on trace on ne compte sur personne que le peuple bi rek loolu moom mës a nekk suñu combat loolu mooy foo xam mënuñu